jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii ci Médina Rue 6 ki nga xamante ni vraiment kenn du ko présenté ci làmb Tapha Kandji bu ñu ko waxee xel day dem ci Boy Niang numéro 2 mu nekk koo xamante ni ñoom ñaar daanaka mun naa ni junni la ak 5000 tur yee bokkul rek waaye yam li ñuy jar keroog gis naa bi mu ñëwee arène nationale tout blanc bi mu def jàpp jib ci doon jàpp mystique yi ñu sollee ci làmb ji yooyu yëpp dinañ ci waxtaan waaye dinañ waxtaan li nga xamante ni fan yi jot naa xew biir Pikine mu jur ay polémique yëpp waaye ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyoo li <laughs> ñu bokk internet yi eh, El Hadj Kaay El Hadj Kaay El Hadj moom mooy mooy dugal Tafa Kaaje El Hadj Kaay dugal Tafa Kaaje Kaay El Hadj Kayta ndeysaan doomu Medina bi boo ñëwee Medina fekk ko fi jaadu la boo ñëwee fekk ko fi. waaji taalibe borom daaru rahman ak bëgg sëriñ Tuubaa sama waaji kanjee naw Moustapha lañ la dippee Mouhamadun Seydal Kawnayni wa Saqalayni wal Farixayni min xurbin wa min xajamin daxayna laaw fal mustamsikuuna bihi mustamsikuuna fi xaqin wa fi xulqin wa lam yudaanu eh, tafaakanji sama xarit nga xam ne yaa dàq way ci réew mi non non El Hadj macha allah yàlla jaamam yàgg El Hadj Keita doomu Medina Tafa ginnaaw loolu dañu lay bàyyi nga nuyu mbokk internet yi. waaw eh, Baye ginnaaw baatu onge bi laa ñu ne seytaane rajim maa ngi sant yàlla bu baax macha allah di julli ci yonent bi sant eh, samay ñaari jur di ñaanal sama jur wu góor ak mboolem way dawlu rek yàlla suñu borom oyof ak seen kaw. amiin yaa rabbal di ñaanal eh, sama yaay ak mboolem yaay bu fi nekk. yàlla ñu fekkee suñu njariñ amiin macha allah yàlla bu kenn sedd la dara seen ginnaaw. di ñaanal sama sëriñ sëriñ Cheikh Darou Rahman yàlla yàlla yokk ay leeram. Mm. di ñaanal Cheikh xalif généraux mm-hmm. di la ziar yow ak sa caméraman di la jaajëfal mm-hmm. di la encourager aussi ji moom ñàkk nañ Cheikh nag bi ñu demee ba ci troisième avertissement bi mm-hmm. parce que booba comme sori na ma mi ngi ci géew bi man maa ngi ci cumikaay bi man xam naa ne yaa quelque chose mais xaw ma lan la mais gëm nga ni daal yow jàpp nga ni booy ñang mi daal instant nekkatu nekkatul parce que stratégie bi doonul woon loolu doonul woon koj la xam nga. Hmm. ëmb la ci benn ruxu. Hmm. ngay arrière loolu doonul woon stratégie. Hmm. booy ñaa pare préparé woon loolu kon tafaatin bi mu ko defee première deuxième. dama ne woon day bëgg a dugal tafaatin ci biir làmb ji mais troisième fois bi Zambala mooy sama Zambala. ñun ñaar ñoo dendee. dama ne ko non Zam am na lu xew. mais booba xamuñ lan la parce que sori nañ ko. parce que loolu doonul woon stratégie. yow boo toogoon ci siège moment boobu. boo jegee Boy Niang loo koy wax. waaw moment boobu su fekkente ne woon maa toog ci chaise bi maa ngi nuyu xës. waaw per passage nit ku baax mm. macha allah ku mm. sonn nag ci combat Boy Niang bi. Mm. koo xamante ni vraiment dañ koy tirer chapeau. parce que sonn na ci combat bi trop préparation bien vrai que la sax. mais suy def da ngay gis ne day def ak yéene day def def nu papa. dëgg la mais booba su doon maay xës. bu boobu génnaatee troisième fois comme samay tànk lay génn dinaa ko téye na fa lan la. waaw parce que waaw lu xew parce que du loolu la ñu préparé. te pourtant que yow li ngay dute nii est-ce que du père xës moom tamit la doon dute kii lan moo xew quoi. mais dama lay téye. yee eh, nga xoola ma ne la lan la qu'est-ce qui ne va pas. parce que du loolu lañ ko digal moom booy ñag numéro deux. Hmm. waaw mais xam nga aussi. Euh, yàlla suñu borom mooy defaree ay mbiram nu ko neexee xam nga jullit mooy xam nattu mais pire ba moo koy nangu. moo koy nangu effectivement nga. Hmm. làmb victoire moo ci am défaite ak match nul. Mm-hmm. saa booy dem nag da ngay yóbbaale ñett yooyu yëpp parce que il faut il faudra qu'on soit sportif quoi mm-hmm. sportif. Mm-hmm. parce que sport dañuy wax ne c'est un esprit sain dans un effectivement donc après yi ci am yëpp suñ borom noonu la ko tuddee woon. mais woon lamb ji nii lay demee parce que lamb ji bu doon ay coono rek. wallahi al azim booy naa du ko ñàkk. parce que no ay millions la ci dépassé. préparation dem France ñëw. ñu avoir làmb ji avoir te ñu toogaat nga waajaat dem. Hmm. te li nga dem def lépp ci sa ay propre moyen nga fa def. Hmm. san compter bi nga ñëwee fii làmb ji dañ nañ ci ay coono ah. mais Tafa est stratégie bi tafaatin Tine teg ci làmb ja andi mhm. handicap ci Boy Niang parce que tafaatin Tine dafa indi beneen Tapha Tine bu ñu xàmmeewul woon. ay ndaanaan ñoo dar Boy Niang numéro 2. Boy Niang numéro 2 lii may wax nii moom xam na ko lundi bi ñuy répété. Hmm. tuus. Hmm. dañ répété tuus ba timis gi jot ñuy waaj a ñibbi ñuy ànd di dox ma xëcc ko ba ci wet gi ne ko est-ce que yaa ngi sóoraale bu arbitre sifflé tafaatin teg plateau dox wut si la barke xaadim rasool wax naa ko ko. bi ci lënd bi lënd ñu war a bëre dimanche ma ne ko est-ce que sóoraale nga bu arbitre sifflé tafaatin teg plateau diree ko wut si la. Hmm. mu ne ma loolu lépp liggéey nañ ci. parce que liggéey na ko ak Zambala te bi làmb ji jeexee Zambala confirmé na ko. ne ma lii Tapha indi nii liggéey naa ko ak Boy Niang plus de une semaine yoo xamante ni damay diree ko saa bu accès nag saa bu ma bëttee lu ma gaaw gaaw gaaw damay wër ndomba te maa gën a baax Tapha rotation parce que moo xaw a gën a suuf pour Tapha Tine mm. Mm. Mm. liggéey nañ ko billaahi liggéey nañ ko du caagi ne dañ ñëw ba làmb ja Tapha indi ay stratégie boobu booy bi réer de non liggéey yàlla xam na ne liggéey nañ ko ñu ci bari dañu ne làmb ji bi mu jeexee gisuñu Tapha moment bi Boy Niang ne dafa blessé ci loxo. moment boobu fan nga nekk parce que lamb dafa jeex rek kenn gisatul Tapha Kadji fan nga nekk. waaw xam nga man nag comme dafa am loo xamante ci laa nekkoon muy ci problème mu cummikaay bi. Mhm. te man nag xale laa ci ay at mais maa ngi bëgg a ci làmb mhm. Mhm. man victoire du ma caaligloo défaite mënu maa caaligloo parce que Boy Niang numéro 2 ànd naa ñu daan ko ma ànd mu daan bër affaire boobu bu ma amee tag arbitre yëkkati loxo tafaatin sama xel nekkatu ci dara soxlaatuma dara lu dul bagage yi ñu indi woon mhm. boo maa ngi ci biir ci mikaali taxaw mhm. di sàmm bagage yi nga xamante ni moom la ñu indi woon mhm. parce que booba jaxasoo bi xaw naa bari foofa laa taxaw waaw foofa laa taxaw doomu fenn ban moment nga mujjee gis Boy Niang ci guddi gi non ci guddi gi dé ci cumikaay bi la ñëw Boy ñoo ànd dugg ci oto sapeur pompier bi ñoo ànd dem hôpital Hmm. booy naa ñu ànd yeeg ci oto sapeur bi lan ngeen waxante ci moment boobu wala moment boobu waxoon waaw ankay waaw waxante nañ bi ñu duggee ci oto sapeur bi waxante nañ parce que li ma jaaxal mooy li ma la laaj ne la li ma li ma la wax ne la man xam naa ne am na lu xew mais xaw ma woon lu xew dañ dugg ci oto sapeur bi ba départ ma ne ko lan moo tax nga nangu tafaatin di la tëj ci ruq bi ci biir ci moment bi mu gaañoo barke Serigne Touba non ñu ngi waxtaan c'est sportif ñu ngi waxtaan ma ne ko lan moo tax nga nangu tafaatin di la tëj foofu mm-hmm. te yow dañ la waxoon ne la sa tànk nay ëmb tànk tafaatin di nekk ci ginnaaw am ngay déplacé waa ak moom latéral mm-hmm. mu ne ma dama teel a gaañu mbir sama ñaari baaraam yi dafa teel a damm ci deuxième round bi la damm léegi suma ma bëggee génn mm-hmm. damay obligé damay xeex moom ñaari loxo te sama benn loxo mënatul xeex mais wër na ma ne tafaa mënumaa laalale suuf ci combat bi ma ko da nga mais lan moo tax kii mais da nga ko waroon wane ñu arrêté lamb ji. mu ne ma noo xam naa ne mënu ma daan ci biir combat bi en plus sama jom ak sama ngor mayuma loolu te ba tey gëmoon naa ne rek même ak benn loxo dama koy daan moom moo ma wax loolu ah. Hmm. nit ñi nag ku la neex ak ku mu neex man ngaa déggee nu la neexee mais man li may wax nii ci sama bàmmeel laa taxaw te sama bàmmeel la ma gënal booñ ak a 2. barki Serigne Saliou Mbacke moo ma wax loolu. dëgg la alafewul dara nag ci mbiru Tapha Tine. Hmm. ñu koy félicité bu baax c'est un très grand champion. Mm. man man j'ai j'ai toujours été cohérent et mm. constant ci sama ay propos. dafa mm-hmm. champion la. Mm. boo xamante ni dama ko respecté. ba pare ñu am lu ñu séq. muy teraanga boo xamante ni yàlla nañ koy yeex a fayantoo. parce que suñu papa dafa génn àdduna. fekk ñuy dox combat ak Balla Gaye de yàgg na mu taal otoom ànd ak papaam ñëw ba Daaru Rahmaan jaale suñu. loolu teraanga la. Mm-hmm. yàlla mooy boole ay nit moo ma boole ak booñ waaw booy ñang numéro deux ku muy bëreel amoo chance ci man parce que moom laa ragal féete day xa mm-hmm. wërsëg mm-hmm. mais Tapha aussi ñu koy féliciter mm-hmm. di ko di ko ñaanal moom aussi champion la dafa bokk ci làmb nit ku yaru la parce que durant li ñu nekk ci contrat lépp vraiment man boog mosuma dégg mu wax ci loo xamante ni kàddu gu ñaaw la parce que après lamb day boole quoi bàyyi ji li waaye du tàqale soo tourné nii nii soo doxee nii tuuti boo taxee ñiy jaay café waaree fan lañ bokki tafaati mm. bi combat bi commencé ba ni jeexee ci jàmm rek la ñu nekk ñu leen jàppee su ma leen jàppee kaf fooree parce que loolu moo ci ëpp solo ay dëkkandoo lañ mm. waaw lamb ji jeex Boy Niang am défaite boo xamante ne bett na waa Pikine ñu bari. Mhm. ndax jàppoon nañ ni combat bi fi ñu ko teg. Mhm. combat la boo xamante ne Boy Niang dafa war a daan Tapha jàll. Mhm. tafaatin Tine daan Boy Niang. ñu dem Pikine xëy la lendemain gis papa booy Boy génne ay kàddu yoo xamante ne ñu ci bari ci làmb rafetlu wuñ ko te te xaaruñu woon lool mu mel ni jur na polémique biir Pikine hmm. mais jur na polémique sax ci biir staff Boy Niang loolu bu ñu ko gisee nan la la def. waaw non avant tout may wax euh, di jégalu. Hmm. Sénégal. Hmm. di jégalu waa Pikine. parce que comme ni nga ko waxee combat la boo xamante ni waa Pikine bëgg nañ ko. te Boy Niang daf ko waroon gagné. mais xam nga jiili bu fekkente ne woon ne ñun ñooy may suñu bopp du ñu jeexal. parce que su fekkente ne woon ne mbër mi day ñëw wala nga xam mbër mi xool ko xam ne vraiment kii. nekkul ci condition optimale pour gagner combat bi mais mm-hmm. Boy Niang c'est très bien préparé dafa préparé combat bi daf ci sonn. Mm-hmm. Boy Niang kenn gënu ko bëgg ndam li moom mu nekkoon ci biir géew bi. mais yàlla comme li ma la wax ñaari ndam ñooy dugg mais benn mooy génn. en plus gars yi il faudra que ñuy def benn rétrospection ci ginnaaw. Mm-hmm. di xool ay tàkkusaan yu mu fi def. ay tàkkusaan yu am solo benn ngemb boo ci boole Saaka Joor. Dolf boole ci Lies 2. Baye Mandione. Garga Mbossé. guy gi. Mhm. Sa Thiès mais vraiment champion la. léegi lenn nag moo ci am des fois nag mën nga koo bañ a faral. Mhm. te loolu dañ koy nang parce que ci réew démocratie lañ nekk. man na mën nga koo bañ a faral nag wax yi mais champion la. champion la. ba pare ci kàddu yooyu ngay wax euh, muy Père de dañ ciy jégalu àdduna bépp. di ci jégalu waa Pikine plus particulièrement ñi nga xamante ni cité na ci seen tur. parce que xam nga mer noonu suñu borom la. déedéet mer noonu borom la astafurlah waaw mer. noonu borom la. mooy waral ñuy wax ne saa boo meree rek bala nga wax danga ngaa war a bàyyi ba dal kii. Père de waxee na xol. wax na ay erreur li wax vraiment. Mm-hmm. kenn rafetlu ko. Mm-hmm. mais nit mooy juum yàlla suñu borom rek moo dul juum. Mm-hmm. te bi affaire bi amee ci changé. moom il a reconnu que dafa def erreur. parce que ñun biñ ko déggee gaaw rek wàcc wax ak moom rek moo reconnaître na ne dafa juum. mais xam nga tooñ tamit lu mu rey rëy rek. baal ma moo ko gën a rëy comprendre nga donc dafa juum vraiment di ci waat ñëpp encore une fois ji li li mu wax Boy Niang particulièrement man aw ma ci problème parce que xam nga lan moo tax aw ma ci problème. Mm-hmm. parce que vraiment papaam la nag. papaam papaam la. Mm-hmm. ba pare. Mm-hmm. ba muy dajale ay ñetti dërëmam ak ay fukki dërëmam booba metti woon na lool booba Boy Niang nag moom rek la gisoon. te Boy Niang moo xaj ci biir ci ci Père de Gaulle mais Père de xajul ci Boy Niang numéro 2. effectivement bien vrai que ñu ci bëri ci fi ko waxee. lañ lañ rafetluwul daal gestu wax bi moom lañ rafetlu wax ak fi mu ko waxee. parce que mm. xam nga léegi-léegi comme ni ko Kandji production di waxee la lin sal salaam en famille. effectivement mais man bu dee kàddu yi mu wax booy naa aw ma ci problème c'est son père. sañ na ko fekk sax ba biir stade nit ñi taxaw mu saaga ko papaam la. ba pare dóor ko ci stade. non la. Mm-hmm. jëndal na ko kër c'est bien boo mettre na ko dans de très bonnes conditions c'est bien beau. Mm. mais devoir Boy Niang numéro 2 la. dafa def mu war a def parce que non dafa def lu mu war a def. Mm-hmm. parce que nag defu ko fu mu ko war a def. Père de Gaulle papaam la. Hmm. yàlla seere na na ak waxtu wi xam naa ne daj na ay coono ci Boy Niang numéro 2. Hmm. Boy Niang numéro 2 aussi doom ji yaru la. Hmm. Père de Gaulle dafa waxee xool rek moo tax ma ne la mer noonu borom la. doom ji yaru la. xale la boo xamante ni xale bu respecté ay waajuram. xale la boo xamante ni lu mu am jox na ko ay waajuram. te intervention yi ngeen dégg yëpp seere nañ loolu. donc Père aussi bëgg-bëgg bi moo ko gën moo ko yóbbaale parce que jili vraiment ku sañoon aussi boo àndee sa doom di wuti boo demee da ngay ama ah. mais comme ni ma la waxee rek buñ may suñu bopp yàlla suñu borom moom mooy dogal. mais est-ce que wax ji waxi Père Dégaule du jur dara benn gàkk-gàkk ci carrière Boy Niang est-ce que li ci kanamam te booy Niang mu ngi waajal combat boo xamante ne vraiment ñu bari dañ ne combat tay mu dee la. muy digganteem ak Balla Gaye numéro 2 que loolu du jur yeneen yeneen polémique ci làmb. su ma la ko waxee bi ko bi ko Pierre waxee 15 heures. Hmm. ñu wàcc néegam 15 heures 10 15 heures 45 nit ñi kaw saal bi di ataaya di reetaan. wallaahi kàcce non mën na ma wal. jili li ma lay wax ni lépp su fekkee waxuma ci dara pour wax barki Serigne Salim Mbacke waaw sëñ Bamba rek lañ hmm. yaakaar du ma ci waat ay caaxaan ndax ay booy ñang hmm. quatre heures trois heures quarante cinq ñu ngi ci saal bi di ataaya di seetaanaat combat bi bi ci bi ci bi ci joxe ay bi ci tiré ay enseignement hmm. Boy Niang bokk na ci mbër yi nga xamante ni ci mbër yi ëpp mental ci la bokk neexul hmm. déstabiliser de hmm. waaw neexul déstabiliser de loolu mënul apporter dara loolu mënul am benn contrainte bu mu koy apporter ci carrière am yow jiili su fekkente ne yow sa wayjur daf la wax loo xamante ni war na la ko wax mais jili loolu amul problème li doon soof kay ñu ne benn samba samba yaane nga an mu jógee ci àll ba moo ko wax Boy Niang mais ki la ko wax daf la ko war a wax wax na ko Boy Niang war na ko ko wax. mais ñu mel ni yeneen Pikine ñi mu tudd ci Pikine 100 pour cent Pikine bi tudd wax ba tudd Eumeu Sène dëggal lii nga xamante ne Lac de Guiers waxoon na ko ci ci ci Eumeu Sène ce que loolu du jur gàkk-gàkk bu dox ci diggante Boy Niang ak Eumeu Sène ak Boy Niang staff rawatina waa Pikine. non Boy Niang numéro 2 Eumeu Sène magam la. Eumeu Sène restera toujours son grand frère. comprendre nga. Mm. bëgguma arrière nag ci propos yi quoi. Mm. parce que am na ci loo xamante ni. Mm. peut-être euh, suñ ko indiwaatee rek comme li ñuy wax naa nettali xuloo xuloo la. mais Tafa wax ji li mu yàq moo lu mu defar. waaw mais moo tax ma ne ñu ngi jéggalu te sànq wax nga sa biir wax nee nga tool lu ma lay rey jéggaloo ko gërëm a hmm. moo tax ma jéggalu waa Pikine plus particulièrement ñoom Eumeu Sène yi nga xamante ni Pierre Dogal daf leen ci cité. Hmm. parce que aussi quoi qu'on puisse dire Eumeu Sène en âme et conscience. Hmm. moom xam na ne Pierre Dogal waaw la parce que am na ay bis yoo xamante ni Pierre Dogal répondre na présent. waaw jàppale ko vraiment. Eumeu Père Dogol peut am na bés yoo xamante ni Boy Niang am nañ ko. Hmm. Eumeu Sène ñëwoon na répondre présent. donc seytaane moo bëri doole walaal azim fu mu xajul rek lay dugg. Hmm. mais encore une fois ñu ngi jégalu Eumeu Sène di jégalu waa Pikine yëpp yëpp yëpp bilaahi njuumte kese kese la. Hmm. yàlla xam na ko njuumte kese la. prochain adversaire Boy Niang kan la. Balla Gaye ñu signé. Aziz nee na du ngeen bëre moom parce que da ngeen a daanu ñaari combat yi da ngeen a waa non Aziz moom encore une fois maa ngi koy nuyu de passage comme ni ma ko waxee woon keroog rek ak moo Anta noonu laa koy waxaatee tey quoi. Hmm. signé wuñ contrat ak Aziz. Hmm. non non signé wuñ contrat ak Aziz Aziz dafa yor mbër ñu yor mbër. ñu xaatim contrat en bonne et due forme boo xamante ni dañ ci signé avec structure Gaston Production. Hmm. war ci bëre ak Balla numéro 2 plus particulièrement Oumar Sakho. donc Aziz aw ma lu ma koy tontu ci loolu. mais Aziz d'habitude lu mu wax ci làmb gars yi dañuy gis ni loolu dafa am parce que Balla Gaye su ma juumul Balla Gaye Modou Lo Aziz Ndiaye nekkoon na ne ci suuf ba pare bi làmb ji jeexee la doog a fësal ni moom moo ne woon ci suuf est-ce que combat bi ñu ci bari ci njort yi njort nañ ni moo ne ci suufu Père Gaston loolu da nga koy dëgg. non non loolu loolu njortu moo ko man en connaissant Père Gaston ci combat bii nii nii nii nii nga xamante ni am na ci démarche yu bëri yoo xamante ni xam naa ko yëg naa ko. Hmm. en connaissant Père Gaston ak doomam Makan maa ngi koy nuyu ñoom tamit au passage. Hmm. yaakaaruma ne noo combat bi kenn nekkul ci ginnaaw Père Gaston. Hmm. ah Père Gaston yooyu tamit. làmb ji bokk na ci ñu révolutionné làmb tey ba ñu bëgg ko xemmeem ko. mais Balla Gaye Modou Lo kan moo ko tëggoon. waaw Balla Gaye Modou Lo dégg naa Gaston moo ko tëggoon. waaw xam nga làmb boobu bokkul ak bii. mais ah, ah boo tax làmb gi nii. ah xam nga bee maîtriser wu ma ko. waaye bii moom li ma ci xam. Hmm. ah ba baa may gis leneen de yaakaar naa kenn nekkul ci ginnaawam. Hmm. parce que luñ ciy wax ak luñ ciy def moom lañ ciy waxal moom la ñuy signé. Hmm. waaw. ñu ci bari dañu njort ni Boy Niang jot naa jot avance. Mhm. yàgg avance ba mu jotoon ci diggante ma Balla Gaye su ci xayma su ma juumul war naa mat vingt cinq millions. ëpp na ko sax ëpp na ko <laughs> loolu est-ce que ñu ci bari ci làmb actuellement ñu ngi njort ni Aziz Ndiaye dina ko jël delloo ko ki nga xamante ni mooy Père Gaston. pour combat moo Balla Gaye mu bañ a antu parce que làmb jooju jotagul. il faudra que aussi nit ñi ñu bàyyi xel que ne booy Niang bëriwul pour Balla Boy Niang bi muy takk ngeem du pour bëre ak Balla Gaye numéro mm-hmm. dafa bokk suñu ay adversaire mu neex ko ak mu naqari ko mm-hmm. ñu war a bëre ak moom su bëggul bëre su bëggul bëre ak ñun non bëgguñu bëre ak moom dañuy dem seete booy Niang ak bëre ay adversaire ci làmb ngeen a jàll ci Balla Gaye parce que deux combats yëpp da ngeen ci échec waaw ah, mais rien euh, loo xamante ni lu impossible la jili làmb moo doy waar mm-hmm. billaahi làmb moo doy waar Balla Gaye numéro <laughs> munta daan Eumeu Sène mm-hmm. mais mën naa daan Modou Lo mm-hmm. mii daan Eumeu Sène dëgg la <laughs> c'est làmb dafa kii quoi dafa garaaw quoi waaw làmb dafa garaaw quoi làmb dafa garaaw mm-hmm. affaire bi du foofu daal du foofu xam nga actuellement dañu nekkagul ci phase bu wax sax ci combat boobu parce que dafa am ci lu ñu jógee xam nga nekk ci toog waxtaanaat xool li nga xamante ni moo dox ñu yokk ko xool li nga xamante ni doxul xam nga ñu xool bu ëllëgee ni ñuy dox nu muy doxee. Hmm. mais Balla Gaye numéro 2 Boy Niang macha allah yàlla nañu ci yàlla yóbbu daal. xam boo ko waxee nag xam naa internet yi gars yi dañuy si <laughs> mbokk internet yi. waaye leen daal yaa gën a dañ naan leen may leen mënu leen daan kii mais <laughs> ñoom Aziz xam nañ lan moo tax ñuy wax ci laamu ji boobu ba tey. Euh. xam nañ daal. waaw ah, ñoom xam nañ parce que dama lay expliquer benn affaire nag. Uh-huh. gis li ci la de hmm. du ci Balla non Balla Gaye c'est un très grand champion. ji mm-hmm. li mm-hmm. su bàkkoo mu neex. bu mm-hmm. signature mu neex. su bëree mu neex. man gëm naa ne Balla Gaye su arbitre sifflé woon digganteem ak Boy naa duñ bëree 3 minutes. déedéet mu dul nekk sax. non xam naa Balla ca sañ-sañ ba ak gëm-gëm ba ak mën a bëree ga macha allah. boobu man dama ko bëgg billaahi <laughs> barke sëñ Bamba Mbaye <laughs> Tapha Tapha wax na ne nee na ko waaw ko bëgg te li mu daal dama ko bëgg sax da koy xool xam ni dafa bëgg làmb. voilà waaw maa lay jaajëfal baax kontaan naa. mais vraiment vraiment le plaisir est partagé. Hmm. wax dëgg yàlla di am yow toujours rek contentement parce que yow suñu mbokk taalibe nga. Hmm. ñu bokk luñ mënul séddoo muy Seexul Xadim ak borom xel kom hmm. ah nga nekk koo xamante ni nag comme ni ma la ko waxee ah parce que am na ci loo xamante ni tey su ma la ci gisoon hmm. wala ma dégg la ci su ma ko seexaay yow dinaa la rek recadrer hmm. suñ ko seexul tamit soo ma bëggee dékk micro vraiment damay bañ dëgg la mais yàlla xam na ne yaa ngi koy teg ci yoon macha allah hmm. damay ñaan suñu borom musal la ci cat. amiin yaa waaw parce que cat dafa sew daal. Mm-hmm, mm-hmm. xam nga li naan doomu ñay doo ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal rek gudd fan. Mm-hmm. donc bu la yàlla musalee ci cat may la gudd fan rek. man gëm naa ne say objectif di nga ko atteindre. ci kàttanu suñu borom di nuy aussi suñu mbokk internet yi. gars yi aussi des fois waa ñu ñuy comprendre internet yi. ah suba waaw suba tamit xam nga. yow bul bàyyi di ci woo ñëpp ñi nga xamante ni dañuy seetaan Wassare. bul tëb état bi suba. yàlla suñu waram dafa def cappaacule yi dañuy takk soxna quoi <laughs> yaa ngi macha allah <laughs> uh-uh. di ñaan képp koo xamante ni yaa ngi may uh-uh. seetaan rek ci wasaare. Uh-uh. làmb nga ñaanal ma ci loolu yàlla suñu borom def ci jàmm. dëgg la barkeel ko quoi suñu mbokk internet yi. Uh-huh. xam nga ñu ñaanal ma ci bu baax képp ku ci mën a teew tamit. Hmm. waa nga ñëw teew daal waa taxam ne làmb moo fay daje. Uh-huh. maa ngi nuyu nag sama gars yi fii nga ñëw nii. Hmm, hmm, di nuyu Kañ production. di nuyu Gibson production gis nga ko noonu mu dugg. nga xam ne man ak moom aussi lundi la ak mardi muy nit ku baax. koo xamante mënatuñoo tàqale. dëgg la waaw di la ziar di ziar waaw wasaare. Hmm. jiile di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. amiin fi jàmm yàgg. kon ñu bëggoon déposer candidat. ci ci ci ka Tapha Kandji jël na jël na nañ buñ quoi nañ bind recours. Ah, wala ñu kay amul. Ah, <laughs> <laughs> maa ngi koy jaajëfal maa ngi lay jaajëfal bu baax di ko jaajëfal bu baax nit la koo xamante ne vraiment nit ku baax la